jërë ngeen jëf mbokk ñi suivre ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa day di ñaan réew mi du Sénégal yàlla na borom daal jàmm euh, tey nag ñu dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye kenn dootu ko présenté suñu kër gi mu di Cheikh Ahmed Cissé borom àndalaa buri borom góor day dëgër ah, fas yéene Cheikh moom waxtaan Cheikh bi dañ bàyyi nga euh, bopp di gërëm suma bopp bi su ma sañse ba lee passé wax ci parce waaw waaw couleur bi dafa noppi. ba pare ñaw bi xam nga ndaanaane daal. waaw waaw noonu laa mel xam nga gars yi may topp donc dama bëgg ñuy sànce. Mm-hmm. gis nga lislaam ñun ñoo ko yàq ñoo ko tardeel. Mm-hmm. dañu dem ba gëm ne ku tekki franc-maçon nga ku tekki góor jigéen nga mais mën nga tekki bëgg yàlla bëgg yonantu di sañse da ngay nekk star man star la mm-hmm. xale tey mën na ma xool ne Cheikh Ahmed lay roy bu ëllëgee bu amee xaalis du dem Dubaay mais day dem Màkka. Mhm. day dem ziyaara ji sëñ Touba day dem ci xunt mi seeti Seydina Limaamu Laay Mahdi. Mhm. waaw loolu la ñun foog ñu nekk star di sol verre yu cher. Mhm. jaaru yu cher. di sol yu am classe di tëdd ci hôtel 5 étoiles di snap xale yi di gis. ñu xam ne kii nu mu ko amee mooy liggéey ak jaamu yàlla pourtant doomi daara la taalibe la. mais foog nañ ne kuy dund ci àdduna waroo noos. xam nga njuumte bi gën a am ci àdduna mooy leen leen a dund amul fii àllaaxira la yow dund buñ la dig te gisagoo ko. ñu ne la am na safara am na àjjana te jaamu yàlla taxut a dem fenn coobare yàlla la. dundoo fii dundoo fii dundoo fële. <laughs> c'est c'est une euh, la donc àdduna buñ ci nekkee faw ñuy sànc faw ñuy waxtaan moo tax man bëgg naa sax miss lislaam ñu xam ne jullit dafa rafet suñ ko defut suñ xale topp Angelina Jolie mais tey misul islam nga doon ibaadu rafet boo ko defoon ñu ne bu leen yàq diini ci mais bu loolu amutee man Angelina Jolie suma star la fu ma ko xamee maa ngi seetaan miss comprendre nga donc faw ñu xam l'islam nan leen war a mun a joxe mission bi yonentu daf noon ballighu anni wala waayatan li nga déggee ci man jottalil ko keneen su dee sax benn aaya la léegi nag alquran dañ toll ci interpréter ko ak doxee ko waxee ko tey yow bu sëñ mu daxa daloon benn hôtel murit dafa dóor kuréelu saf doo bëgg dem ci hôtel bi soo fa demee di nga xalaat laalante da naan fii leen doon taggee sëñ man lii laa bëgg. tey teeru bi ñu ne la waa Kër Baye fay zikar. laa ilaaha tubaab bi den fay jaaree gëm yàlla. ndax baatu laa ilaha illallah noo ko waxee mu neex ndax laa la laa douze la muhammadu rasulullah douze muy vingt quatre heures ñuy dund. moo téye àdduna ak moo tax ku ko wax benn yoon aras yëngu loolu lu ñu war a xam la mais tey den naan non hôtel baaxut te hôtel nga mën a dundee dund bu neex musique mën laa yëngal. ndeysaan ñu ne la baaxut. nga war a ànd ak jigéen bu rafet ñu ne na yiw nga war a liggéey xaalis ñu ne àdduna amul solo xaalis amul solo naj la benn pala ci yowmal xiyam àjjana safara noo man dund ma loolu wa ah. su ma bakkan bii dama koy dundal ci àddina bis bu ma deyee ñu aj su may kook suli ma su ma ruuxu gi dama ciy jaamu yàlla su ma xel mi xam-xam su ma xol bi damay tudd yàlla ndax ala inna zikrullahi tatma inul qulub te mooy maye sakinatu mooy maye am na ak amaanatu waaw jàmm ak salaam waxi olof la may xam nga lan mooy jàmm nekk ci lu la neex xam nga lan mooy salaam nekk ci lu neex sa borom kon nekk ci lu neex sa borom ak lu la neex tudd yàlla koy maye moo tax man lislaam la du ma sëriñ waaye nit yàlla la moo tax ma sañse nii bi ma liggéey ba am xaalis dem màkka jënd suma sañse yu baax sans style you know mm-hmm. di am ay suma soin de visage suma ay pédicure manicure yu baax mm-hmm. su toogee su dem Turquie mm-hmm. xam nga bëñ dafa tasaaroo ni bale woon ak waa defaraat bëñ tëj ko weexal ko gën a mën a sourire te moderniser naa reetaan parce que reetaan dafa am solo <laughs> comme reetaan dafa war am bonus mais du toog rek xaqataay nu la neexee surtout di ree di dóor nit noonu yooyu yëfi xamante la yëfi robot la nit da reetaan reetaan bu civilisé comprendre nga. Mhm. donc ñi may topp laay waxal quoi. d' accord am na solo ah. ni nga décortiquer sañse bi vraiment mhm. ak. ak ak dund bi am na solo. dafa solo. billaay vraiment. sëriñ ñu naan tey. waaw ku dàqoon na sañse Seydina Issa Laye. amul de ku dàqoon na sañse Baye Niass. amul de ku dàqoon na sañse sëñ Cheikh. ay sëñ Abdoulaat Mbacke. Ah, yow an na safatu mi ne iman ñu ne yow bul sañse. billaay percal pour ku dee la parce que bàmmeel amul sañse. Mhm. man damay sañse ba génn télé. d' accord Amath fi may njëkkee mooy sa sa digganteeg xale yu jigéen ñi. ban relation nga am ak xale yu jigéen ñi. bëgg leen parce que dafa mel ni yow sa association euh, góor ñi. Euh, salaam non man moom su fekkee mën nañoo changé règlement yi ci man bis bu ma dee na ma jigéen sul. Mhm. wallaay tallaay. ma relation nga am ak ñoom. bëgg leen lool man dama bëgg jigéen. Mhm. bëgg jigéen bëgg jigéen bëgg bëgg benn xale ka mu ne ma kii du sëriñ bëgg jigéen ma ne ko kaay mu ñëw ma ñaanal ko ba pare may ko dix mille. ndeysaan waaw damaa bëgg jigéen. te bëgg leen dafa war. Mhm. lan moo lay attiré ci Euh, premièrement li ñu doon jigéen loolu moo tax ma bëgg leen. Mhm. deuxièmement société biñ nekk ni ñu leen doyadalee suufeel leen moo tax ma yërëm leen. Mhm. waaye nag man ñi ma ci tànn moom pour ñu dàmp ma moom da ngay am forme bu rafet moom rafet moom wax dëgg yàlla. Mhm. waaw jigéen ñëpp laa bëgg mais ñi ma bëgg a jëflanteel ah ñooñu moom dañuy rafet am dënn bu baax am ndigg lu sew jonge am toq réew daal. Mhm. waa mën a sañse bëgg àddina loo leen jox du leen doy man j'aime bien. Mhm. réew su ma ne benn na ma téeméer. Mhm. man ñooñu laa bëgg di jëflante mais man jigéen en grosso modo laa bëgg man. d'accord mu mel ni nag euh, vraiment wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara. gis nañ ni bi nga ñëwee di commencé jaay ci wàllu awra yi ba tey euh, gis nañ ni Sénégal am na loo xam ne yokk nga ko fi ci loolu Ahmed est-ce que des fois dooy dund ay jigéen yoo xam ne dañuy am ay jafe-jafe seen néegu sëy te duñu am fenn fuñ ko mën a jooyee fu dul ci yow mi nga xam ne yaa ngi seq ñu may waxtaan. suñ ma wooyee dama leen di bloqué buñ ma message ma bloqué leen. parce que mënuma comprendre gis nit ci image rek ñaan ko bu dee am nga jëkkër suturaaloo sa jëkkër. xeeblu nga sa jëkkër waaye weer nga sa jëkkër bu dee amoo jëkkër jigéen bu amul jëkkër ay mbokkam ñooy waliyuwam ñooy waajuram da danga am soxla laaj leen ab Ablaay ku juddoo ci askan nga jooy te amul kenn ku la jox musuwaar fompal sa rongoñ seetal loo fa def ku juddoo ci koñ amul benn bunt boo sañee fëgg wax sa soxla seetal loo séq waa koñ ba mm-hmm. ñu ne bu dëj bëree nit ka génne àddina la waaye su jaalee baree ca kër ga ca ñam fa bala munuma comprendre gis nit rek jël message téléphone rek ñaan ko mooy benn amoo dignité amoo personnalité xamoo sa bopp waaye amoo jom nangu naa sëriñ bi dama am jafe-jafe dimbali ma ma liggéey ma ne la aw ma liggéey na la yàlla dimbali nga seet keneen mais may ma gor dëgg bu ñaanee rus ndax ñu ko mayee mu am bu buñ ko xañee mu am kersa. moo tax yonantu ba muy digle maye daf ne seetil gor gi ñàkk ta toog këram yonantu sallallahu alayhi wa sallama toog na ñetti fan amul dépasse Abdourahman ibnu Awf moo ëppoon alal Ousmane ëpp wala ay sahaaba la ñaanut leen man bëgguma jigéen buy ñaan góor moom dofoo sax nga ñaan ma moom duma dama lay humilier mais jigéen dama lay bloqué. mais bu demee ba sës te amul pexe tamit. non mënul ñàkk pexe parce que du ma kër la nekk ana waa kër ga dafa am soxla yuñ mën a muñ amuñu mënta muñ boo leen dégloo sax soxla yi luñ mën a muñ la am na ñuy créer ordonnance spéciale di ko jaawale ngir mën a ñaan. Hmm. maanaam ñaan moo bari te yomb Sénégal pour xeex ñaan na mooy bañ a maye waaye jox ka nga war a jox. Hmm. ab laay ku fi maye te yàlla tax ñàkkoo koo ko jox. Hmm. donc man daal jigéen bu ma ñaan ma bloqué la ku ma ñaan ku ma woo téléphone ma bloqué la laaj leen ñoom xam neen ko man li may wax nii xam neen ko. billaahi wallaahi taala ak ma jógee ko aussi. tàmmalu ma leen ko de man ñi may jox jigéen ñi may jox non non non échange la tu me donnes je te donne <laughs> sa xel nag lu mu dem rek loolu la waaye man lu yiw laa waa tu me donnes je te donne échange la quoi comprendre nga mais toog nii rek maye nii non melu ma noonu ndax damaa ameewut noonu sax wax naa ba xottee ko ngir ànd laa buri suba bu jot maa ngi koy jaay prison maa ngay jaay tribunal maa ngi jaay màkk sa maa ngi doon jaay damay liggéey mii na leen ko de ñi ma seqal joxante xaalis tu me donnes je te loolu moom maa ngi ci ba tey waaw da may jox ma jox lañu ñu échanger. Mm-hmm. d' léegi ci wàllu xale yu jigéen ñi ba tey dama ciy des parce que gis nañ souvent say wax une deux trois xale yu jigéen ñi xale yu jigéen ñi xale yu jigéen ñi ñu bari sax dem ba naan Ameth léegi dafa am benn genre mafia dafa am benn genre team est ce que loolu noonu tey jii jàppoon ni mën na xaw a yàq dara ci sa répétition. non mafia boobu sax laa bëgg ah mafia bi laa bëgg a man bëgg naa mafia boo xam ne damay am ay jëwrin universel maanaam caga ji ma ut ku leen jiite volekat yi ma ut ku leen jiite mandikat yi jaaykat yi suuf yi jaaykat yi yàpp yi seen dégg buloo wuman yi sisaakat yi ñëpp ma am jëwrin su may passé message ma man mafia boobu laa bëgg a créer parce que man xaw ma nit ku bon jëf ju bon laa xam jëf ju bon nag du tax ma ba nit ki ndax nit kiy jëf tey lu bon mën naa jëf lu baax suba ab laay benn place mu nekk tureekaayu mbali nga nangu faa tuur mbalit ñu génnee mbalit ma def fa jumaa nga nangoo julli ne wa annal masajida lillahi fala tadoo maa laahi ahada nit ki moom nga ne dafa bon tey rek suba du baax nanguma loolu man maa mafia boobu laa bëgg a créer. mais en tant que nga bokk jamra aussi tamit est-ce ko nangul. non jamra du lislaam du tarixa diine ko gën a foor. Mhm. jamra man maay maay jëfandikoo jamra comme élément liggéeyal yàlla ci jamra. Mhm. mais jamra mënul liggéey ci man. Mhm. te lii may def noonu may wax noonu islam da koo nangu. islam sànniwut kenn islam pour ñëpp la fépp ba faw képp ku la génnee ci lislaam moom moo bon te ku ko assign pour mu nekk juge bu la war a juge génne la ci lislaam loolu yooni jamra nekku ci seen a reen a war a jamra man doom ju baax la doomi diine la den maa yar defar ma ngir ma dimbale jaam ñi jaam ñooñu nag bàyyiwuma ko ca baar ba bàyyiwuma ki màndi ba xalangu bàyyiwuma ki cagatu bàyyiwuma ki ñëpp génnee amul fu mu dëkk yàlla laay xool ci jaam ñi. d'accord mais bi nga ñëwee Jamra ba léegi ñu gis ni sa communication daanaka euh, day gën a yokk waaye wàññeekuwul te ñu bari yaakaar ne boo demee Jamra dañ lay xaw a éduquer ba tënk la fenn wax yi ngay wax nii des fois xam ne dañuy nekk jàng Jamra ci ay a ma waxee aayul xam nga man mal compris laa ci Sénégal den ma comprendre mais lii comprendre nen ma xam ne na waa ji nitu kese la ku joteeg moom yaa ko tooñ xam ne na xol ba dafa yéwén xam ne na benn ambiance kat la xam ne ne boroom xam-xam bu woyof la man Sénégal ñoo ma nangul ngànt léegi. Mhm. waaw ñoo ma bëgg dugal ma seen xol yi fu mu nekk ñi ma daan saaga léegi soo ma saaga sax am ñu fayu. Mhm. Mhm. fa laa toll ci xol yi. di gërëm yàlla di ko sant aussi. d'accord Ameth sa diggante ak Pape lan la. Pape Diouf bëggante bëggante rek la. dama ko bëgg mu bëgg ma. ci ci showbiz ngeen xamante wala nga ñamoon ay relation benn ba. non non non ci musique am laa ko xamee obviously fekk ma ko ñaari tali. Mhm. wala benn raay wala ginnaaw raay. Mhm. dafa woy mu neex ma. Mhm. loolu di dem di màgg ba mu gis ma ma neex ko mu dem di màgg bañ déggante téléphone dem bañ gisante. d'accord ñu gis ni euh, avant may ñëw ci woy bi. am na yenn période yoo xamante ni Pape ñu bari sax jàppoon nañ ne dafa voyagé ba nekk nekkatul Sénégal parce que kenn déggatu ko woon euh, ñu gis Ahmed nga volontaire wu ñëw Euh, di di ko jàppale di ko dooleel ci wàllu communication ba tey am na ñenn ci say soppe yoo xam ne sax bëgg nañ Pape Diouf euh, lu waral loolu. waaw nit soo ko bëggee da koy jëriñ ndax nit njëriñ doomu aadama boo bëgg te jëriñoo ko maanaam nga jëriñ nit ki nga bëgg mooy wane mbëggeel gi. Mm-hmm. Sëñ Abdou Karim dafa woote ruuj bu yàggut mu bari nit. Mm-hmm. den koo bëgg. Sëriñ Saliou génn na àddina waaye xel koom kenn du toog. Mm-hmm. den koo bëgg. màggalu Touba kenn du toog den koo bëgg appel bi su jotee xam nga ne Dakar pay weex. Mhm. dañoo bëgg naa Limaamu. dëgg nit koo bëgg rek nga nga dimbale ko mooy wane mbëggeel gi ku ma woo interview ma bañ kenn du ñëw suma kër mais da ngeen di ñëw. Mhm. dama leen bëgg. Mhm. loolooy mais jàppale boobu noonu nga am ci moom tamit est que moom tamit am na ko ci yow. waaw foog naa ko de. Hmm. te jàpp naa ko te gëm naa ko. parce que dañuy gis euh, yenn ci ay soirée am ak way yu yim la way. daanaka yow boo ñëwul rek <laughs> boo ñëwee yaa fi nekk mais boo ñëwul nekkoo fi parce que man des fois damay dem soirée mais damay xaar àndalaa ba sonn ak góor de dëgër mais du ma ko dégg. am na ñu ma ci interpellé ñu bëree bëri na ma Pape Diouf soo teewee mu woy la soo teewul du la woy Pape Diouf nii la mel Pape Diouf naa Pape Diouf nii Pape dama ciy dégg lu bëree bare bare bëri mais Ablaye nit ku daan woy mu neex la. nga koy bëggee xamoo ko nga dem bam xam la dem ba mu wéy la loo xam ne ci àddina mënatut a fay kooku da nga koy jàppal ngànt parce que am na ñu ma gën a bëgg Pape Diouf man te mënuñ koo gis. amuñ numéro xam nga ne ci weeru koor bi maam Fama Touré jabaru alaaji Yacine su ma doom bàjjan ak bébé baas rekk a doon lijjanti ndax lekk naa di yàkk di indi. ci àddina ba mu jeex ci ñu ma bokkal yëpp. xam nga ne tey Pape juuf taxaw na ci seenam 6 minute di ma ko wéy di ma tëggal man kenn keneen bokku ci. Mhm. donc yooyu moom ma doy su ma bàjjen mu ne. bu ñu takkee nag ci bunti kër bi na la Ablaye sa ndawala ngi bu la doyut bu ñoroon nit du la doy loolu ñu ngi ma ci interprète. mais tamit dañu gis ni comme li ngay wax boobu ba tey yaay dem mais tey gisaguñu benn yoon Pape Diouf déplacé wu ñëw ni Ahmed Cissé tey damay ànd ak yow. wala Ameth Cissé tey def booy live da tey booy live da may invité parce que Ameth ku ko xam-xam ni moom loo koy a jàppale jàppale ko ci àndalaay donte woy ne eh, kat Ameth ni muy def parce que dañuy gis yaay waaw loolu it am na waaye mag ak rakk la rakk ji xam nga mën na di dem mag ji toog loolooy kilifa ak kim yëlif tu comprends moom mooy suma mag man maay rakkam mën naa di dem mais est-ce que bu yàggee tamit doo dooni kii booba tey maa ngi dem parce que Sénégal tamit wax dëgg yàlla chaque jour ngay dem rek te moom du ñëw boo ñëwee soir ñu woy la boo ñëwul soir dañu la woyee après est-ce que loolu noonu doo am lu lu mu xaw a wàññi seen diggante ñaar. seetloo gu ma ko mais bu ma ko seetloo kay mu wàññi ko moom man moom ni nga ma rek laa la toll mais pour l'instant seetloo gu loolu jàpp ma loolu mais bis ma ko jàppee kay mu wàññeeku man moom suma bopp rek laa ne seetluwuma loolu jàpp ma loolu mbëggeel gi moom ëpp doole. mais bu ma demee ba seetlu ko ah damay toog su demee ba su ma teewee lay wéy su ma teewut du ma wéy. ma abal ko wéyam rek bàyyee ko ko mais gisaguma loolu daal. Mhm. gisaguma loolu seetlooguma loolu. Mhm. loolooy loolu lool daal laa ci mën a tontu bés bu ma ko seetloo nag moom dinaa xam ne lii lii la. Mhm. mais nit ñi ñoo ko seetlu loolu ñoom la concerné. ñu bari am na sax am wax naan da lay utiliser. parce que chaque jour yaa ngi génnee say moyenne soirée bu amee yaa ngi ciy sonn di woo nit ñi kaay leen ma may leen ay ticket tey Pape man su dee ay programme Pape Diouf yàlla ci yow laa waaw xam nga tey loolooy mbëggeel tey woykat bu mu mën a doona ku am ku mel ni Cheikh Ahmed da koy jël man dinaa la indil coow dinaa la indil bruit dinaa la indil mbooloo dinaa la ñaanal dinaa la ñaanlul dinaa la baatare te ñu bari dañuy baatare woykat ñu pare séddoo ci ron ñu bëri business la seen biir man maay liggéey suma àndalaa ñëw jox la ko dëpp ñibbi comprendre nga. Mm-hmm. parce que maa la bëgg loolu laa la mën a defal. c'est ça quoi mais euh, loolu Pape juuf am ci man keneen bëgg na ko ci keneen. waaw ci foofu noonu ñu gis ni sax Pape Diouf dem bi ngay dem ci moom dafa mel ni eh, dafa dafa la xaw a tënk ba tey mënoo dem Baara mun di mënoo dem Vogue. te amet te amet ametu ñëpp la vraiment. si looloo tax mënumaa dem feneen. man bëgg bi ma bëgg Pape Diouf moom a tënk mënumaa dem soirée ñu bari. Mhm. soo nekkut suba teel damay am problème généw dem sa soirée te boo nekkee suba teel yi damay généw. Mhm. ndax man loolu laa xam. mais man damay bëgg a baali ñeneen du ma mën a dem parce que maa soobu ma engagé mbëggeel dafa am lu mu lay jaral. mais wax dëgg yàlla léeg-léeg ma toog moom am musique yu ma dugg moom neex lool suma xol ma tëju fecc ko. mais su ma génnee du ma ko wax. daa mel ni sànq maa ngi dégg ngay woowee xaali <laughs> xaali mën nga toog kër ga. <laughs> bu ma dugg si daal di mooy ñëw. <laughs> amee daa mel ni sama neex na la de. non neex na ma. xaali bi. waaw xaali moom temps yi moom may dugg mais non non dugg suma xol bi. mais mais soo noppi rek la yem. <laughs> mais tey est-ce que mënuñoo xaar dimanche dimanche dimanche Ameth Ameth Ameth dem foog parce que tey tamit nekk na koo xamante ni euh, yaakaar naa ne kenn waru ko tënk parce que Andala amul kuy ñëw naan la maa ko jënd ci barke Pape Diouf wala ci barke Waly donc tey dama jàpp ne yow passe partout nga fépp fa fépp fépp nga war a dem kenn waru laa tënk noonu la war a demee mais dafa am ñoo xam ne man man yàlla moo ma wërsëgal Pape Diouf ci misigam yàlla moom ma wërsëgal Pape Diouf ci musique am parce que fi mu fi mu méttee laa ñëwee fi ñëpp bàyyee laa jàppee. Mhm. man wërsëgu Pape Diouf laa. donc mënumaa nekk wërsëgam soo biis classe la soo biis bi kenn du noonu sa moroom de. eh Youssou Ndour day déglu Wally Wally day déglu Youssou Ndour bay jooy ci oto man ku ko xama ma ko wax. Pape Diouf day déglu Wally parce que musique amul frontière mais soo biis dafa am lu koy créer ku mel ni Cheikh Ahmed tey wàcc ak daraam soirée Wally loolu day bënn. non mais man ci Pape jouf laay toog fa laay toog quoi mais léegi léeg damay bëgg a dem damay bëgg a dem Kéba Seck parce que man dama bëgg géwél dama bëgg ambiance man. lu neex waa man dama bëgg lu neex te lu neex ñëpp la mais man fii laa féete. Mhm. ragaluma loolu dama koo ñeme. Mhm. xam nga tey Pape jouf ci micro su bëggoon na wéy suma ma noon su bëggoon a wéy su ma noon du ma xool da koy wéy parce que moom wéy la séq moom. te man du ma dem ci adversaire u euh, Pape Diouf musiquement Pape Diouf amul adversaire gëmu ko doxewu ko mais ci musique adversaire day am compétition day am ku muy compétiral du ma dem ci yow li tax du ma dem du bëggumaa dem du sa musique neexuma du safuma lu neex ñëpp lay neex musique bu naqaree rek dàll yu naqaree rek ay métti bopp mais mélodie bu jaar yoon ah yaa ngi déglu Bob Marley te déggoo anglais. Mm-hmm. yaa ngi déglu salsa te déggoo espagnol musique musique la fu mu neexee ñëpp bëgg ko. Mhm. surtout lu ñëw naturellement loo xam ne waajoo ko quoi. ne man ci Pape laa féete. mais loolu du la ci sa cadre liggéey la. Ah? ci àndalaa buri bi. Mhm. non àndalaa nag ku ko wéy ma ñëw ci yow. kooku moom xaaruma ci Pape Diouf. Mhm. ku fi wéy àndalaa ma ñëw fekk si la. parce que nag suma intérêt mooy àndalaa su doxul duma ma mun a battre Pape Diouf di. su doxul du ma mun a fay luwaaye wéykat bu fi engagé wéy àndala ma ñëw doole la ba nga xam ne wéy nga boroom jom mais man suma ma bopp ci Pape laa féete mais suma ma àndalaa bi moom ah bis bu ko wàlli yuuxu xam ne <laughs> yuuxu na garmi de. kon sa diggante yaak Pape li nit ñi doon wax ak di ko layam layamee amul problème. non non non man seetlu ma woon sax bu ma nekkul màkk du ma wéy mais nit ñi wax neen ma ko ba ma seetlu ko bi ma nekkul Sénégal du ma wéy seetlu naa ko léegi. te wax naa ko ko yónnee naa ko vocal. <laughs> ko wax laaj naa ko. ma ne ko da su ma teewee nga woy ma su ma doo mooy dama xam lu tax. laaj neen ma ko ma laaj ko ko parce que man dama sincère man nëbbatuwuma. Mhm. mais tontuwut vocal bi. tontuwu ko. donc léegi da ngay toog croiser balaa di xaar. mu leeral déedéet su ma gisee naa ko laaj. dinaa ko laaj mu wax ma ma xam. mais kon léegi da ngay croiser balaa xaar mu mu leeral loolu nga a demaat soirée. non non non bu tëggoon say tey ma ñëw su ma kër noonu bu fa Pape Diouf tëggee ma dem. mu fa yóbbu man moom laa bëgg mais su ma ko gisee dinaa ko laaj lan moo tax su ma teewee nga woy ma su ma teewu doom woy mu wax ma raison ma xam. parce que réeroo amul ñàkk a waxtaanaam te su ma mag la am la man ma ko bëgg dinaa ko laaj laaj naa ko vocal tontuwul su ma gisee naa ko laaj. d'accord te su ma tontoo danaa xam la may tontu lan la. d'accord. Mhm. tey boo amee looy dolli loo xam ne fàtte naa la koo laaj. non mooy suma suma garab bu bees bi rek. soq waaw soq. bii moo mën àndalaa mooy jar cinquante mille ñetti yoon nga koy naan ci semaine bi waaye nag yéen ñi ko war naan bu ngeen fajoo ba wér gore leen wax ko ñeneen parce que lii bëriwul. Mhm. limited edition la li anglais naan limited edition. Mhm. it cost hundred dollars hundred euros hundred pounds five thousand dollars cinquante mille francs. mbuus bi bii mooy soq. maa ko tuddee soq ci suma initiative bopp. ku ci jënd 1000 francs benn bu ne 1000 francs ba soq ko moom bu ma jaayee 100 mu am 100000 mu dimbale ko boobam ci entraînement yéen ñi bëgg mbëri jàppale leen mbëri. man noonu laay jàppale soq. ci garab gii. Mm-hmm. lu ne lay faj. Mm-hmm. xam nga doy waar moo daaneel garab yi ñeneen ñi. waaw àndalaa buri daane doy waar. Mm-hmm. bii moo mën àndalaa buri maa ngi dégg sax ñu naan ma sa àndalaa buri bi. atoote la ma ne leen yéen a ñàkk jom atoote vie watara di ko defaree koroga di ko <laughs> ngeen koy jëlee foofu di jaay nit ñi 10 000 ma ne pat atoote am effet secondaire di joxe migraine bopp bu métti atoote di joxe insuffisance rénale bu bon ku ko naan di saw ba doo mën a téye sa saw mi soo ko naanee doo géex day téye sa biir bi ah atoote di yëkkati sa sidit bi di ko abusé ñu dëbb ci Viagra ci biir atoote da nga koy naan daanu ba pare sa awra bi du daanu garab naturel foo daanoo dafa war a daanu jugaat. Mhm. loolooy garab naturel ma xam ci atoote lu bari ki koy defar Viagra benn doom la am Vénitien la tudd man mii maa koy daaneel. ma xam ko bàyyi fa garab gi indi leen àndalaa bu baax ngeen ne butéel yee nuroo benn la c'est pas vrai butéel yi benn usine chinois moo koy defar boo xam ne diggante Ghana Cameroun bi suma garab di jógee ay Côte d'Ivoire ak ñooñu ñooy dajaloo soo defee garab yi ci biir butéel yu fi day not mm-hmm. nit ñi benn leen ça ne veut pas imam bee këdul imam benn leen du ñu benn. neen arrêté te yem seen jaay jaay ko bu duggee ci man ma arrêté an atoote léegi nit ñi dootuñ ko jënd ndax dama cee xam lu bari ministre de la santé bu Côte d'Ivoire rapport bi mu def ci atoote atoote maa ngi ko amee. Mm-hmm. atoote léegi pour mu génn Côte d'Ivoire da ngay fay neex la la mënatu faa génn parce que reconnaître ruñ ko. Mm-hmm. donc neen arrêté yu ñuy def borom atoote sax su ne si ñaari at yi changé na atoote ñetti yoon dafa am odeur am ariel goût bu bon boo xam ne day xesewal sa gémmiñ. Mm-hmm. day yàq put ndax benn garab moo ci nekk boo xam ne waroo koo naan. tubaab boo warta naan daf la koy pikiir mhm. mais luñ la war a pikiir nga war koo naan dalay lay lor naankati ànd atoote balaa wax danaan <coughs> baatam bi day mel ni lu taq baaxul te maa ngi noppi neen ma bàyyil suma ànd laa buri buñ bëggee jàmm kon loolu lay tàggatoo di wax ne numéro yu affiché mooy pour sumay garab ñu moytu pirate bi 77 750 30 30 musul jaay suma garab mhm. ku bon la di def lu bon jaayul suma garab 77 750 30 30 bu fa kenn jënd suma garab jaayu ko. Mhm. am na ñuy taf suma garab nag naan ñu ngi jaay léegi tey ma commencé tëj ci kaso gi. parce que mënumaa indi ànd laa buri muy faj kër yi may ministre de la awra di dimbale nit ñi nga dem jël sa garab taf ko jaay ko yow kay ànd laa suma maam la am nga maam tuddeel sa garab sa maam publicité jaay ko bëgg jënd mhm. la vie n'est pas compliquée mhm. kon maa ngi gërëm maa ngi sant maa ngi leen di wax ne yéen rek laay topp képp ku bëgg lu baax demal people 221 nga cliquer. nga abonné nga partagé. donc mu ngi noonu ah di leen li mu waxoon rek fa lay jeexale parce que cin bokkul cafin aussi tamit moom njaayam daanaka euh, wax dëgg yàlla garanti na am na facture te lay wax lu leer demal nga essayé. Ablaye waxee nga ñëw Ablaye. waaw nit fay na. ordonnance su bari. fayaat pour jot sa niiw. Mm-hmm. Ablaye amul menuisier buy dem na la kaay ma daajal la seize bu daanoo yàqoo nga ñëw ma joxaat la bu bees wala ma delloo la sa xaalis amul avocat buy jël procès ne boo gañewul ma delloo la. Mm-hmm. xam nga yenn ci avocat yi ñaata nit leen jël seen xaalis te plaidé wuñ leen dafa bari. amul journaliste bu lay wax ne kaay fay ma ma defal la pib boo jarlewut ba jeexal ma delloo la sa xaalis. te ñun ñëpp dañuy liggéey. pharmacie da ngay dugg jënd ñu koseel la benn suba benn ngoon nga dem wér nga wéroo du seen affaire. mais man dama fëgg su ma dënn depuis 2019. ne su ma ànd laa su ma doy waar. ku ci jënd amoo ci satisfaction tëjaatal butéel bi delloo ma jox la sa xaalis. Mhm. te kenn mosu ci indi problème. Mhm. mooy na dama mën dama ëpp doole dama gën a féete xale. Mhm. ba pare nag bàyyi loolu yëpp indi soq. ñett yoon ngay naan ci semaine mu faj la fukki jàngoro ak ñett. ay gaaw a daanoog yooyu boo naanee soq dootoo ko gis. donc dama mën te li may defee ñu bëri defeewuñ ko bii day fajale gaaw a daanu faj émirut ba faj ndoxu siti soq dafa am morom. d'accord bu jàppee Jackson. <laughs> donc mu ngi noonu ah di leen jox yeneen daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.